yàlla nag ne ko ko fa bàyyi dem loola dal yawa kii bu may introduire wax wax bi andi contexte bi lii doy na ci li ko dage ngor gii lay gënnaawam ci géej fa jant bi sowe li nit xam ak li mu xamul ndijoor ak càmmañ li ñu xam ak li mu xamul ki fi yàlla nëbb xayru xalxilaayi la mooy moom mënul Mamadou moomu moo nekkoon Màkka weex delluwaat fii ñuul kuk moo tëdda Yoff nii kon Yoff ak yi néew fa te ci kanam di ngeen xam ne waa luy néew fa ku waxuma gis nga dama ni bu wet di doon am parti ñun du suñu problème nous nous sommes des partisans de Dieu partisan wu jën nag day gëm yàlla gëm yeneen tam te gëm nañ ko weddi nag yàlla la yàlla gindi mais ñun gëmuñu deret ku kuy gëm yonente wala nga sës ci ñëw la ci gën a sës yaakaara ñu deret ju jóge ciw tàngaay ñëw di seral fii yow di ko kalaa seral seralal fa nga dëkk ñu tax a wax nag am na lu xam lu bari